keppaaruk Serigne Mor Kane borom daaru boo ca yaree lépp looy mën a woote ci àdduna wala ngal kàpp ay ngëneel lay doon kappaar googu nag ca la ki nga xam ne mooy seex yaroo bay woote li nga xam ne mooy cant ga ngay am ca mbaaleen ci ndigalu ki nga xam ne mooy xalifa Serigne Aliou Kane di ki nga xam ne moo nekk sëriñ Souley Kane ca ndigal googee lañu koy woo ak doomi sëriñ Mor di Baye Cheikh Kane ak ki nga xam ne tamit euh, moom lañ parrainé bis bi mu nekk Mambay Mbeng di jàmbaari fàkk tëdd ji di ki nga xam ni mooy responsable politique ci jaayaan ak mbaale nag li ko wër loolu lépp daanaka di tiitarub moom it daanaka mu nga ca biir li nga xam ni mooy programme boobee ndax fu batub euh, waa mbaaleen xonkee euh, moom la ñuy gis keneen koo xam ni bokk na ci li nga xam ne ndajamee ñu dara jaaleel ko ko ki nga xam ni moo nekk Serigne Cheikh Kane borom daaru di waajur ci ki nga xam ni mooy Serigne Bassirou Kane nekk fii ci diwaanu Thiès di fi def liggéey boo xam ni bu am solo la ña nga koy darajaale ki nga xam ne tamit mooy waajuram bu góor di ko darajaale ki nga xam ne tamit moo nekk euh, Serigne Ngouda Gueye général nekk fii ci Thiès euh, borom xalima gi nga xam ni euh, du laal suuf moom Serigne Ngouda ña ngi ko koy darajaale bis boobee nga xam ni daanaka lépp mooy borom bis boobee da ca woo tamit waa Louga Serigne Cheikh ma nga cee woo waa Serif Lo ak waa Tawa Fall Kelle Gueye ak Ndoukoumane Njaxate Ndiassane ñoom ñëpp kenn kum ci man di ci tund wii ña ngi la cee woo di ca woo waa Ndiayène Ndakaaru Ndiaye nag fàttewuñ leen Daaru Touré ak Ndoukoumane ñooñee fàttewuñ leen waa Kër Mbaye Guèye Bangaaj Samb ak ba ci Fandène gi nga xam ne moo nekk sunu ginnaaw loolu lépp di am solo bu baax a baax kon sëñ Cheikh mi ngi woo ñëpp ku dégg li nga xam ne mooy communiqué bi mooy sa yëgle le 21 janvier tombé ko samedi fële ca Mbaaleen